mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyoot baax fi ñu leen daan nuyoo ñu ngi tey ci arène Adrien Senghor tey nag su lay sëñ moo organisé di amateur waaye nag di promoteur ànd mbokki lamb yëpp famille bi ma ànd ak Mansour suma doom ci caméra bi waaye ñu ngi nuyu mbokki Leewtoo yëpp ñu ñuy suivre ci internet bi mbokki Ngunjaan ñu ngi leen di nuyu Pay Joor Samel Cangay waa Mburuwaay Ibra Saro la Lagoyal Pangol Babacar tey fii lañ leen ñëwal arène Adrien Senghor Mansour yaa ci gis association des arènes Adrien Senghor de Grand Yoff fii rek wane lamb ak li ci biiram xoolal rang bi nu mu demee gars yi dañuy jënd billet quoi benn rang ñaar ba ñett waa mais grand tey moom rang bi xaw naa xat de. waaw xat na trop waaw gis nga ko. Ah. waaw. lu ko waral miis bee ko waral wala bëgg lamb. bëgg lamb. Hmm. waaw di ko di ko nuyu rek man Abdou Aziz. ok Ndiaye ñu koy jaajafal yaa ci gis xam nga ne lamb boo ñëwee gars yi nga xool surtout lutte simple yar bu ñuy àndal ak teggin bi dañuy ñëw rang. ba pare amul puusante amul dara kenn ku ne jënd sa billet jox sa morom ñu ñëw dugg kon Mansour nii la ñuy ànd ak dem ci biir làmb ji jëlee leen li fa nekk jërë ngeen jëf. eh Birame ñu lay ziar bu baax waay. waaw mais Doudou tey billet ñaata la. tey billet 1500 2500 la. kan moo organisé. eh Souley Sagne Djilas waa Djilas ñëpp a organisé tey. waaw Souley Sagne Djilas bu organisé ma gis la ci biir gis ñoom Ousmane Ndour. Souley Souley Sagne bu organisé dafa mel nii man Doudou ñaan Djilas production maa organisé tey damay naan Souley Sagne ndax mais sama bés la. ndax Djilass dëkku lamb la biram ñëpp xam nañ ko donc tey eh, Djilass bu ñuy organiser organiser amateur yëpp a war a ñëw ndax ñun waa Djilass du ñu yàq lamb ndax dañoo bëgg lamb waaw te ku mel ni eh, Ndeye Fatou Adama Dialli nak fii tey ak Kafal Faye tambour major de Djilass xam nga ne eh, loolu moom dara du yomb dara du yomb ñun waa Djilass nag Ndeye Fatou lu bees lay indi tey lu bees lay indi yàgg na di indi lu bees mais tey lu bees lay gën a indi lu bees lay indi tey waaw tey su lay su lay sañ a ngi nii. waaw su lay sañ a ngi nii nekk sama wet su lay sañ mooy jilaas mooy duudu ñaan mooy boo waxee su lay sañ rek wax nga jilaas yëpp moo tax tey boo gisee nit ñi nit ñi ran fii di xëcante bunt bi xam ne jilaas waa jilaas du ñu mës a yàq lamb te dañoo bëgg lamb ñu ngi ñaanal amateur yi nag ñu dugg si ci jàmm seetaan lamb ji jàmm ñibbi ci jàmm. mën nga wax Souley Say ba ci kanam. waaw mais li ma gën a jaaxal du loolu. rang bi dafa teel a te ci biir commencé fees. Euh, li ko waral mooy du ma si wax lu bari actuellement sama yaram dafa tàng kii jour bi ñuy joxe date yi man ñëwuma moo ma taxawal fii mais kontaan naa ci moom mënaguma wax dara sawar naa. kon mbokki Leewtoo mu ngi noonu. ñu ci biir Souley Sagne production tey. Grand Yoff dana wàccat ba zéro duut ñaan undu ba wonga jilas bagey ma ndiouf fa bor sigay jare keñan roga bindo bage manju fo bortige dama leen a njaay kalira ta arma ee yande yoo fa woote a sukna ba futoona ba ba caare kor njuuma ee okpa nga ba futoona ba ba caare kor njuuma caare góor gi mbay rokwa nga sukna babu dohna basar ba caare góor gi mbay a foda ma lay tampele jonga yaran lay a nanongele a foda ma lay tampele seetaan waaye déglu ay ndey Fatou Adama Jali ak Kafal te tëgg ma Fatou si Thiawoya Sarata laa ilaaha illallaah waaye Caaka Faye ak xoolal gaskel jàmme xale yi carrière ñoom Cheikh Ibulaay mu day ne siiday ngay Adrien Senghor nuyu nañ la ñoo lay fay Adama Jali saa bu ñëwee rek dugg ak si bu bees di yuuxu. waaw arène bi di toj. def ci amateur yi. waaw loolay dëgg ndax ñun dañoo xam ne ay amateur la ñu yoo xam ne ñun lutte simple la ñuy seetaan kon Adama Jali bu ñëwee fii da doon woykatu séeréer séeréer yëpp dañoo war a jóg waaw loolu mooy yoon. waaw. ma ne saa bu duggee. teg. lamb ji teg rek kenn ku ne yaa ban côté fële moom day faatu. waaw ah, boo gisee loolu. Ndeye Fatou moo mel noonu ndax suy dugg ci géew bi daam nu muy dugg see moo tax suy dugg ku nekk day xool fan lay jógee. maa ngi lay ñaata mbër ñoo euh, am na ñeent fukki mbër ak ñeent. 44 ñoo bindu. ku dem final. gagné ñaata ngay am. Euh, ku gagné final di nga am 600000 ku daanu am ñaari demi final si nekk am 50000. mais lamb ji fees na mbër yi moo wane ne lamb rek am na ay jéego yu mu def surtout bëre simple. boo xoolee caméra yi fi nekk am na ay at tolluwuñu woon nii ça montre que gars gis ci bëre bi ñu taaral ko daal kenn bañ ko ñaawal. bonjour comment allez-vous. comment vous appelez. Jean-Louis. Jean-Louis vous êtes aujourd'hui à la lutte sénégalaise. oui absolument j'ai tenu à venir euh, voir un match euh, de lutte sénégalaise à Dakar parce que j'ai la chance euh, de connaître mon ami Jordan. Et, euh, et je voulais qu'au-delà de l'exploit technique, je puisse rencontrer également tout le peuple qui fait vivre la lutte sénégalaise, c'est-à-dire l'énergie, euh, l'ambiance qu'il y a autour d'un match. Comment donc vous allez observer la lutte sénégalaise ah ben, Je vais l'observer euh, d'abord à travers ce que j'ai compris, <coughs> et puis il y a Jordan qui va m'expliquer un peu la technique, les difficultés, les facilités, euh, bref, tout ce qui fait le détail euh, d'un grand match. Voilà. Moi, en France, je jouais au rugby. Et euh, au rugby aussi, il y a de l'ambiance, il y a tous les dimanches les gens qui se réunissent. Et, et, donc, de la même façon, mais moi, je voulais voir au Sénégal comment ça se passait à travers la lutte. Parce que je crois beaucoup que L'homme, elle bien toujours se battre. Mais il faut sublimer le désir de se battre par un sport de combat, c'est-à-dire un sport avec des règles. Et j'aime beaucoup la lutte sénégalaise parce que c'est pas un sport euh, dans lequel violent. C'est-à-dire que c'est physique, mais c'est pas violent. Voilà. waaw Mansour bëri bi dañ ko mujj am luñ ko doon waxal mu ne gars yi noppi leen Ngeesa ngoog yàlla si man. yaram moo tàng yaram moo tàng yaram la nee na gars yi noppi ana ku doon wax na noppi am na ku muy laaj de waa mais Ngees lu wax nii ndeysaan gelal ma xoolal ma Ngees la muy def eh Ngees Njaay la ilaha lamba ngi doon ak mbiram lamb la ci ne dafa bari lambi séeréer wala lambi simple da ngay am tëgg am fecc xoolal ma lii laa ilaaha illallaah gees waay mbokk ñi suuf ci Leewtoo TV eh Alex Ka ndeysaan ndeysaan champion yi ñëw na ana Doudou Faye mu ngee ñaan amateur bu mag boobu ndeysaan attention combat ba dem na daw na jëli ko mu bañ daje nañ ca kaw daje nañ ca kaw eh rof na ko nax mu bañ mbuday ne carrière am na ngem mbuday ne crochet na ko mbuday ne sidaay croché na carrière kenn ku ne da nga ndengeñ sa morom dañoo ndengeñante attention Mboudaye na jàpp na ngemb la loxol droite Mboudaye na dugg na Mboudaye na mu ngi koy yóbbu mu ngi koy na ko laa ilaha illallah Mboudaye na daan na ko moo jàkkaarloog nun ndeysaan ñoo ngay lewoto nga leewtoo jàppoon loxo attention bu eh général jël ko daan na ko eh impérial général Malika jël bi gaaw na Malika jël ko daan gaaw na jël bi dafa gaaw jël bee gaaw san mang ca biir attention sangoo nanu jàppante debba na ko nax mu bañ daw naag moom mu kal eh jàppante nañu ku ne am na ngem ñaari mbër yi ku am na ngem ndeysaan lamb ji na del ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy suivre ci Leewtoo TV Tandian daw na jël ko attention la mu koy forcé waru a ah, ca wàll wa mbar ne daan na benn Tandian suñu càmmoñ waaye arbitre be ñu xaw a laq combat bi ndeysaan attention jàppoo nañu Bente Ña defal ndànk ci xale bi defal ndànk ci xale bi ñaari bu mën a daan nit amagul eh xale bi ko song ko ah toogee ko daan ko Bente Ña ko waaw waaw ko bi Thiam a ngi noonu mooy parrain bi ànd ak Souleye Sagne mu ngi nuyu waa daw na nuyu ko Djiby Thiam nuyu nañu merci maa ngi leen fay bu baax maa ngi leen nuyu Souleye Sagne du ne lamb ji jëgëjëgë waaw jëgëjëgë non non kontaan kontaan la am rek mbégte la am si moom jërëjëf jërëjëf merci merci waaw mais artiste bi nga sama waay la on est là amagul yootu na ko bañal. ndeysaan may kàlloo mi di romb may jub yegsil jàpp na ko jàpp na ngemb mu ngi koy yóbbu muy bañ fu mu jëm moom. laa ilaaha illallaah xoolal ma combat ba ay waay góor gi war na ko ndomb góor gi war na ko ndomb eh góor gi war na ko ndomb xëcc na ko mu koy daanal mu yaay fii yegsil daanal na ko ah góor gi si ñoom daan na yegsil Adama Diack de macha allah ca tëgg mbokki Leewtoo attention général na ko jël na ah, ca biir nit ña arbitre attewaat na dañu koy avertir attention waaw waaw ñaari wala ñetti la général na daan na ko góor gi si Dieng ba fu mu jëm moom da koy dindi wala déet lonk na ko ko daan na ko jël ba leer na da jël jël bu jëkk waaye demul Général Malika sunu càmm yegsil jël na ko yegsil a ngay bañ yegsil bañ na laa ilaaha illallaah lu mu ko nar yegsil waaw waaw yegsil daan na ko daanal na ko attention général Malika xale bi dem nañ ma ci suuf dem nañ ci suuf général Malika xale bi jàpp na ngembale attention xale am na njàmm Boy Malika général Malika jàpp na njàmm li ndeysaan El Hadj Mamadou Ndiaye El Hadj Mamadou Ndiaye ñoo ngi koy nuyu amateur yu mag yooyu caaka fay ak Assane ca beneen wàll ga waaye fii général Malika la eh jël na ko mu ngi ko doon yóbbu bañ attention xale bi day bëgg Caaka Fay attention Caaka rallonge bi rallonge bi xam naa moo koy jéem a handicapé jàppoon nañu song ko bëgg a def dana doy waar caaka dana ko nangu eh eh Ndeye Fatou Adama Dialy toujours égale à elle-même nee na ko Sarata da ay setu eh caaka war na ko ndomba penalty eh yàkkati na ko ba kaw daaneel na ko ci suuf. eh la def ni Gaskel Jammeh xale baa ngay bëre ñu ngi lewato jàppoon nañuy loxo gal na ko loxo ba ca kaw loos la attention war na ko nopp penanti la na ko daaneel na ko ci suuf eh Gaskel waaye gaskel lu mu defati ni ah première demi-finale yegsil Thiaka Faye deuxième demi-finale général Malika ak ki nga xam ne moom mooy Gaskel Diame le champion de Palmarin yegsil Thiaka Faye ñu nga lewoto eh général Malika daw nay jël tànk ba Gaskel bañ attention général Malick ak Gaskel général Malick ak Gaskel eh jàppoon nañu songoon nañu attention général sol na ko Gaskel da ko ndengeej général jàppante na moom oh. ah avertir nañu yegsil ñaari avertissement yegsil attention boo amatee benn yu daan lan eh Gaskel jël na général Malika jël na tànk ba na tànk ba général na général jàpp na ko Gaskel ak général eh eh attention yegsil caaka yegsil sukk na ñaari bëtoom yi caaka féete ko kaw daan ko yegsil éliminé en demi-finale par Gaskel Jammé ak Malika ey waay Général Gaskel Général Malika Gaskel ey Gaskel jëlaat na tànk ba jëlaat na tànk ba jëlaat na tànk ba Gaskel bañ na waay lay lay la la Général daan na Gaskel général Malick Kanda. Ah, waaw tey xanaa kontaan ci lamb ji kontaan ci sama rakk Souley Sagne vraiment lii euh, dafa may honoré daf ma honoré tey honoration boo xamoon ne euh, xamu nu ma ko ci delloo njukkal di kontaan ci waa Jilaas ñëpp ak ci sama grand frère bi Abdou Waxal nga xamoon ne sama grand frère ñi ma bokkal ndey ak baay moom lay àndal jibi Jilaas nga xamoon ne ancien mbool la ñëpp ko xam fii ci arène bi d'ailleurs moom la ñu doon woy léegi kontaan ci lit bi. waa Lutte TV kontaan ci yéen encore bu baax a baax parce que ndax yéen a tax tey may suivre la lutte en direct à partir de mon bureau à partir de mes services aw ma dara lu ma leen di wax li di leen gërëm di leen sant bu baax kontaan naa trop ci yéen. waaw ok merci. waa général yàgg nam la rek. yow da ngay dundal làmb quoi yàlla sa jàmm yàgg di ñaan yàlla ma yàlla suturaal. décembre 2019 fii ci fi nga xam ne mooy arène Adrien di stade boo xam ne tàmm nañ fi lamb rawatina semp Caaka Faye moo jàkkaarloog ñun général Malikaan woon ginnaaw Caaka Faye ak général Malika final ngi lewatoo ñaari mbër yi mbokk yuy suivre Ibra Saaro la ko yaal Pangol Caaka Fay général Malika Fatou Diouf ñu ngi laa nuyu waaye ñu ngi nuyu mboolem askanu lamb rawatee nag waa lutte simple l'arbitre sifflé waat na ndeysaan ñaari mbër yi songoo nanu bàyyante waat nañu général Malika moo ñu woon ginnaaw càkk fay jàkkaarloog ñun ñoom ñaar ñëpp pied gauche jiital Fatou Adama Dialy Ngom ca animation ba waaye Gafal Faye le grand tambour major ñu nga lewoto public baa ngi ne tekk di xool di xaar diggante ñaar ñaar attention général dem na songi jàppoo nanu bàyyante waat nañu général Malika Thiaka Faye le 15 décembre le 2019 fii ci arène Adrien Senghor Souleye Sagne organisé ko l'enfant chéri de Djilas le promoteur de la jeunesse et de l'espoir de la lutte simple surtout un million la tegal mbëri ana ci ñaar ñi kan moo ci yóbbu daanu ubbi jàppante nañu général Malika sokkatal na ko général Malika sokkatal na ko attention ñaari xale yaa ngay général Malika ak Thiaka Faye o fogole lak o lagoyal pangol Ibra waaye Awa Sarr ñu ngi laa nuyu arbitre sifflé na avertissement Thiaka Faye par passivité maanaam dafa mel ni général Malika moo gën a moo tax waaye looloy baaxu sangoo nañu caaka fay daan na ko